donc euh, ci loolu daal ñu ngi leen di xamal ne daal fii ngeen ñëw nii daal wax dëgg yàlla place bu màgg la bu am solo ci diine. ñu gis ne mosquée bi mosquée bu kéemaane la ndax boo gisee fi mu taxawee fi mu nekkee rek déjà kéemaan la. Mhm. waaw c'est vrai parce que bon en fait euh, ndigalu suñu borom la parce que mosquée bi bi muy euh, bi muy wàcc kaw asamaan ñaareelu asa benneenu asamaan bi la jóge di wàcc sang bi gis ko ci baatin suñu borom ne ko topp ko. mu topp ko escalier yi ngay gis ni fii la sang bi jaar ci baatin topp topp jumaa ji ba mu posé wu fii mu posé wu ni aujourd'hui architecture bi architecture yàlla la donc euh, du du architecture doomu aadama ku bëgg a gis architecture yàlla rek ñëwal si jumaa ji di nga gis euh, architecture yàlla wax dëgg yàlla noonu daal euh, mbir mi demee quoi. mu nekk benn mosquée rek si Afrique saw jant parce que ni mu nekkee si suufu géej gi jege géej gi fiix mi yëpp nekk si mais li si gën a yéeme mooy li ko wëri lépp. waaw li ko wër lépp mën naa wax ne aaye yàlla la parce que yàlla moom buy def ay mbiram dafay indi ay seede ca loola donc booy xool euh, fii mu nekk nii euh, fi mu posé wu nii montagne yi ñoo ko wër te montagne euh, aaye yàlla la asamaan sànq tiim aaye yàlla la géej gaa ngi suñu boor ci peggu jumaa ji kon loolu tamit aaye yàlla la ndax suñu borom buy def mbir dafay indi ay firnde lii yëpp ay firnde la yu wane ne rek place bi ten tànneefu suñu boroom la ndaxte bu du woon tànneef kon ay yàlla yi ko wër nii duñ fi nekk parce que lii defuñu ko suñu coobare si ndigal lañ ko defee. sànq sëñ bi fi ñu taxaw nii mooy fan. Euh, fi ñu taxaw nii euh, mooy euh, mosele sang bi te mausolée bi dafa am histoire histoire moo di jamono yi nga xamante ne liggéey nañ jumaa ji ba mu sotti fii mu tëdd nii tey fii la fii la doon recevoir gan yi nga xam ne dañuy ñëw vendredi julli si donc genre salon la woon bu mu doon recevoir gan yi di waxtaan ak ñoom di lay ñaanal yàlla ñuy dellu waaye ci dundam. daf ñu xamal ne fii mooy bërëb bi nga xam ne fii lañ ko war a denc ëllëg d'ailleurs bi ñu koy liggéey sax daf ne euh, sol bi bu ñu si def béton de propreté nañ si def euh, sable de dune kese teg ci karo yi ngir ëllëg bu fekkente ne ñu ngi ko fiy denc mu neex a lijjanti donc euh, bërëb bi moo nekk nii te bi mu ko waxee loolu ba pare daf ne ginnaaw moom buñ fi denc keneen moom kot moom kot nañ ko fi denc te bu ko fi kenn fekk si ndax dafa bugg a wéet ak boromam fii si place bi moo tax loolu la ñu respecté ba fi mu nekk ni moom rek moo fi nekk keneen fekk seewu ko ci. en fait fi ñu taxaw ni euh, euh, neex na présenté parce que garab la goo xam ne gi dafa bokk ci sémboolu jumaa ji tey ndaxte sang bi bu daan euh, ñëw ci liggéey bi fii la daan toog ci taatu garab gi jàkkaarloo jaam yi ñuy liggéey di liggéey jumaa ji donc moom day xëy comme ñun wàcce comme ñun fii lay toog bi ñu tàmbalee jumaa ji mu ne incha allah ci kàttanu yàlla jumaa ji di ko liggéey ba mu jeex kenn du fi gaañu kenn du fi dee te lii mu wax tam noonu la demee ndax man mii bokk naa si ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon liggéey jumaa ji ndax man dama daan def su ma xëyee ñëw xëy si nekk manœuvre ñu tàmbali jumaa ji bu deux heures jotee ma yéeg escalier yi dem sama kër sol sama yére dem liggéey noonu daal laa ko doon jàppoo ba jumaa ji jeex donc man aujourd'hui euh, euh, euh, bokk naa si ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla xam nañ lu xew si jumaa ji yëpp waaw loolu daal ju euh, garab gi nag mooy symbole bi nga xamante ne fii la nitu yàlla ku màgg gi daan toog di xool jaam yi ñuy liggéey mu leen di ñaanal yàlla te bu ñu daan liggéey boo wàcc wax dëgg yàlla dañu daan def benn cercle fii lañ daan def benn serk mu taxaw manœuvre yëpp def benn cercle ñu jàppante suñu ay loxo mu ñaanal ñu yàlla ñu soog a yeewee ko xabru la xabru bi nag euh, soxna sang bi muy aawaam di soxna sagar jaañ ñu koy ñu koy faatu jaañ moom moo fi nekk euh, bi mu wàccee liggéey léegi ça fait un an euh, am na doomam bu jigéen bu ñuy wax ndey ndey Aminata Diène Guèye moom itam fii lañ ko denc tey jii tey jii ngeen di def émission bi tey mooy quarantième jouram donc ñoom ñaar ñoo tëdd fii di wéetax di wéetax suñu borom Eh, di ñaan suñu borom rek yàlla na yàlla yeesal njéggal ak yërmande ci ñoom bi xormati nabi karim sallallahu alayhi wa sallam wa bi bi fi ñu taxaw nii fan en fait fi ñu taxaw nii dafa bokk ci symbole jumaa ji ndax binde yi ngeen di gis suñu gannaaw nii muy alxuda di taxwala di aslaha Euh, lii mooy baasu oote sang bi lii coow li di bari yépp fi la oo jaam yi ci loolu lañu tënk ñun ñu nekk ay tout tànk ah, euh, toggooguñu sax bàkkaar mu woote ñu ñëw wuyu si ak samay moroom ak ñu bëree baree bëri bi mu ñëwee ci lii la ñu tënk muy jub ragal yàlla sellal donc lii mooy baasu wooteeb sang bi Mouhamed seeni xalifatulaay fil ardi yàlla yàlla yokk leeram bi yaay nabi karim sallallahu alayhi wa sallam voilà yi ñu ngi nag si mosquée bi yegsi nañu ba toog fekk fi imam bi ak ki nga xam ne moom la ñu àndoon émission bi yëpp muy alaaji Papa Ndéné nekk doom si kër gi sëñ bi maa ngi lay nuyu imam ratib taay maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw kay ñu ngi lay fay soxna si euh, Ndeye Ba yal yàlla dalal la si jàmm ci mosquée de la divinité te it di nuyu téléspectateur 7TV yëpp di ñaan suñu borom sabaraka wa mu defal ñu jàmm jàmmi xel jàmmi xol ak jàmmi yaram wéeru xel wéeru xol ak wéeru yaram te it koor gi nga xamante ne ci la ñu tàbbi yàlla ñu ci yàlla defal ndimbal may ñu wér ak kantan ba ñu yeggale kook alhamdulilahi rabbil alamin amin yaa rabbi yow yaay imaamu fii nga xamante ne fi ñu ñëw tey mi mosquée de la divinité waaw alhamdulilah euh, moom la yàlla dogal jaarale ko ci Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullah fil ardi e, mu tànn ñu teg ñu fii si néegu yàlla bi ci mosque de la divinité ne incha allah ñun ñoo ko fas yéene jiite depuis bi nga xamee ne jumaa ji yegg na te sax lu jiitu jumaa ji di taxaw euh, boobu fekk na dégg nga mu mu def ñu imaam ñu nekk ci mbooloo mi bu waxtu julli jotee mu daan ñu tànn ñu nekk di jiite mbooloo mi muy topp suñu ginnaaw ba bi nga xamante ne néegu yàlla bi sotti na tamit mu daal di ko gën a confirmer xam le ne imaam taay dégg nga bu jumaa ji yeggee moom mooy imaamu jumaa ji kon nag depuis boobu ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dollu ñu ndimbal saa yu ñu taxawee jiite yal yàlla nangul ñu nangul képp koo xamante ne ni topp na ci ginnaaw incha allahu taala. boo ñu doon wax kan mooy góor gi seeni Gueye sang bi. waaw Mouhamed góor gi Seyni Gueye eh, doomu wakaam la eh, di doomu góor gi Daouda Gueye ak soxna Aminata Diène le 19 juillet 1926 la judd fii ci wakaam fii la màggee tamit fii la jànge ndax papaam tafsirul quran la woon. yoroon na daara yi tamit dégg nga ci papaam la jànge alxuraan ak it ay moromam yoo xamante ne ni nekkoon dam ci ci daara ji bi mu jàngee alxuraan yi tamit dégg nga dugg na école nasaraan ca école Médine la doon jànge am na fa diplôme am certificat d'étude am après dem def chambre de commerce def fa comptabilité génn am diplôme comptable nekkoon tamit doon liggéey ci entreprise bu ñuy wax OGIE dégg nga ci OGIE boobu nag def na dégg nga chantier yu bari ba gannaaw Touba gi mujj euh, lycée Djignabo ba ñu koy liggéey moom moo fa nekkoon dégg nga doon diriger travaux yi ba bi nga xamee ne jël nañu war a tàmbaliwaat liggéeyu Touba ji ci Lamp Fall dégg nga boobu la ñu jox nag chantier ba seen entreprise ci lañ ko jëlee Ziguinchor dégg nga nekk demal nga rejoindre Touba ngir diriger travaux yi foofa nag la liggéeyee ba. 63 bi nga xamee ne jumaa ji yegg na ñu jébbale ko sëñ sëñ fàllu ci la nag jot révélation divine di nga war bàyyi liggéeyu nasaraan di nga ñëw toog xaar boromam subhaanahu wa taala waaw ba ba 77 ci la ndigal li yegg si nag ci moom ci war a gédd feeñ wax ak nit ñi lan moo waraloon retraite spirituelle bi nga xamante ne nii moom la defoon booba 67 63 ba 1977 amatul woon benn activité lu dul lëlu ci biir néegam yore téere alxuraanam bi jàng bu waxtu julli jotee mu génn dem jàkka di soit yi bi si toog dégg nga noonu la ko defee ba 14 ans mat dégg mu soog a génn nag woo ay bokkam en premier xamal leen lan moo waraloon toogaay bi nga xamante ne ni moom la toogoon te it toogaay boobu du woon toogaayu yaafus ndax toogaay la bu ndigal lu suñu borom la tabaaraka wa taala te it nettali nañu wax ne eh, bi mu déggee kàddu gi natt na boppam seet ba xam ndax lii seytaane daf ci am wàlla waaw wala déet ndax bi mu nattee boppam xool ne digganteem ak boromam fàttalikuwul fenn foo xamante ne ni mas na fa mooy boromam digganteem ak moroomam tam fenn foo xamante ne ni mas na fa tooñ moroomam mu ne kon nag lii seytaane amu fi la ndax su ma diggante ak sama borom macha allah kon lii kàdduk suñu borom la loolu daf ñuy rappelé rek. ni mu gaare woon suñu maam Ibrahima alayhi salaam eh, ba mu jotee ndigalu wara a rendi doomam Ismail eh, ndax hésité na ba mu mat ñetti yoon yëpp foog ne seytaane moo ko gane si dégg di ko xiirtal ci loolu mais ba mu xoolee ne lii kat du pexem seytaane mbiru borom bi la ci la ci waxtaan nag dégg ak doom ji nga xamante ne moom la concerné xamal ko nekk kat gis naa suma borom sant ma ne naa la rendi ci la ko doom ji waxee ne ko bàyyi defal li nga xamante ne moom la sa borom digal kon Euh, ndigalu yàlla moom bu xasee ba yegsi rek ci jaam bu jaam bi xoolee boppam digganteem ak boromam ba xam ne lii ndigalam la dara waru ko lu dul mu jëfe ko kon nag noonu la jëfe ndigal loolu def retraite spirituelle am ba mu yegsee waxtaan ci ak soxnaam su tedd sa ajaa Fat Diagne ñu koy wax sagar yàlla na ko yàlla dolli leer moom itamit dégg nga mu nangul ko dégg nga li nga xamante ne moom la ko indil ndax ku daan liggéey di fayeeku salaire weer wu weer wu dee wu nekk nga yor ci sa njaboot di ci dimbali say bokk ndax bu weer deewee danaa jël ay enveloppe def ci enveloppe bu nekk xaalis kaste yónnee ci ay bokkam ñi nga xamante ne nii néew di doole lañu waaw kooku daan def loolu am allocation familiale yooyu yëpp nga ñëpp nekk fa ñukk tekk fa ne ndigalu sama borom laa jot damay bàyyi liggéey dem toog te amuloo sañ-sañu dem tàllal kenn loxo ne dimbali ma ndax kër ga dépense amu fa njaboot gi xiif nañu alors xiif nañu rafle nañu sonn nañu tamit waaye lépp ñu nangu ko te xam ne ndigalu seen borom la subhaanahu wa taala moom ak soxnaam ak ay doomam te it ci doom toogaay bi tamit am na ci doom yu ci juddu xam nga kon metti na waaw sa soxna nekk ëmb lor nga war di dem visit war di jënd ay ordonnance loolu yëpp ba mu imbi nga war a taxaw tudd yooyu yëpp ay coono la nga xamante ne nii ki ki mu tegu ci kawam mënul génn sàkku ci kenn ndimbal lu dul toog ne borom bi moo ko toogloo kon kooku euh, xam na fi mu toll ci digganteem ak boromam alors noonu nag la Mouhamed Seyni xalifatulaay fil ardi dundee ak njabootam da nga ci ndigalu seen borom bi subhaanahu wa taala ba fukki at yi ak ñeenti ba mu matee ci la kàddu gi yegsi nag ne ko nag génnal waxtaana ak say bokk 6 euh, mars 1977 ci la génn nag woo ay bokkam waxtaan ak ñoom ci toogaay bi lan ma ko waraloon alors toogaay ba nag gis nañu ne ba mu tàmbalee waxtaan ay kay yu bari la jur di liir guddi gu nekk la mu diggaaleeg boromam bu yeewoo bind na ko guddi gu jot lu mu gis bu yeewa bind na ko guddi gu jot lu mu dégg bu yeewoo bind na ki dugg jot lu mu wax ci baatin su yeewoo bind na ko moom moral bañ ko dajalee ñu def ko ay tom ba mu nekk sept tom mu tuddee ko euh, les révélations divines alors kon nag noonu nag génn nag wax ak ñoom xamal leen ne bu fekkee ne am na kenn kuñ doon séentu ne dina wàcc man dey seeni wàcc naa te suma gannaaw keneen dootul wàcc kan mooy wàcc ku wàcc dafa fekk nga yéegoon alors alxuraan nettali ne eh, suñu borom subhaanahu wa taala ak si eh, yonent yàlla Isa ibnu Maryam eh, daf ko yéege ndax weddi dina waxee ñi nga xam ne dañu wax ne rey nañu Isa daaj nañu Isa mu ne déedéet loolu seen xalaat la ak seeni wax waaye li fi nekk ñun yàlla ñoo ko yéege alors naka la ko yéege nag ndax jëmm ji moom jëmm Insa jooju moom mooy yéeg walla Insa alayhi salaam bi yàlla dogalee mu war a gane si àdduna fekk na waajuram Mariama dégg nga taxaw ci ak sellam buggul jaxasoo ak benn góor te gàppug juddug ndaw loolu jot na suñu borom coobarewu ci coobareem eh, daal di jox Seydina Jibril leer gi ne ko fekkal Mariama fële mu nekk. nga wal ko leer gi ndax doom la ju war a juddu te àppam jot na ci la jibril fekk mariama fa mu nekk ba mu ko gisee moom tiit na ndax moom dong di jigéen gis góor goo xamante ne ni mu ngi jëw di ko di ko jub si mu muslu nag di sàkku yàlla mu musal ko ci si jëmm ji di ñëw noonu la ko xamal ne ko yaa ngi muslu ci man waaye man dey ndawal sa boroom laa dama dikk indil la di leer goo xamante ne doom la te sa borom tabaaraka taala yow la dogal dégg nga nga war ko ëmb mu ne man ak doom te ànduma ak góor mu ne ko loolu yëpp sa mbir la alors ci la ko leer gi leer googu nag bi mu nekk ci biir bi ci la sentir dégg nga jëmm di yëngut ci biir bi mais leer moo jóge ci suñu borom jaarale ko si jibriil mu wal ko ci Mariama te ñëpp xam nañ ne doom buy sosu mi ngi sosu ci ndoxum góor bu dugg ci biir jigéen waaye kii jigéen ji fegu na sëyul ak ku góor waaye leer la suñu borom ëf ci moom ci baatu kun fa yakun googu doom ji daal di ci sosu mu ne ko sa doom ji bu juddoo na nañ ko tuddee insa kon doom ji kan la ndax leer gi la déedéet leer gi ruuxu laay la leeru yàlla la jëmm ji juddu sosu ci biiru Mariama jëmm jooju moo tudd Insa alors jëmm jooju nag ba mu dikkee indiwaale leer gi moo tax ñu naan Insa ruuxullaahi waa léegi nag jëmm jooja moom lañu jël transféré ko ci beneen jëmm leer ga suñu borom yéege ko leer googu nag la suñu borom di waxal naan wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahum bal rafa'ahu llaahu ilayhi mm-hmm. li fi nekk moom suñu borom mooy yee gën a leer gi fa moom mu ci kaw asamaaw alors leer googu nag la suñu borom waxoon ne dina dellu siwaat xamal na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi ne ko leeru insa googu dina dellu si Muhammad tamit xam na ne insa dina dellu si dina wàcc si ci yéen te bu dikkee dégg nga suma xarifa lay doon alors moom nag la wax ni leer googa suñu boroom yéege woon moom la yàlla coobarawu ci ci jëmmam yéege ko fa mu dencoon leer googu dona la ko mu wàcc ci kaw suuf bi mu wàccee ci suuf nag ci la wax suuf ne ko yaa ardu inni rasulullahi ndax bi muy départ ci suuf la départ woon yéeg alors kon su dellu si il faut mu yëgal suuf ne ko man mi ñu yëkkati woon kat dellusi naa kon nag ci la wàcc ne yow suuf man mii ndawal yàlla la alors noonu nag ba mu ko waxee yéeme na ndax euh, loo xamante ne nii nopp ma su ko woon daloo lu dul dañ ko daan jàng ci alxuraan te xamuñu nu mu demee jëmm doom aadama sa mbokk sa moroomu nit taxaw di wax ne man mii may ki ñu doon xaar man la suñu borom tabaaraka wa taala waajale ci asamaanu ñaareel wàcc ma ci kaw suuf xamit ne yàlla dong nag moo ci suma seede ku ci bëgg xam dara dégg nga na laaj sa borom subhaanahu wa mu xamal la kon daal Mouhamed Seyni mu noonu xamal gi nga xamante ne moom la ko suñ borom wax ne ko suñ ci bëggee xam dara eh, nañu julli ñaari rakk ginnaaw seen julli farata buñu julee jullee ba pare balaa ñu julli safaak witar nañu def ñaari rakk fatiha qul huwa allahu ahad fatiha qul a'uuzu bi rabbin naas su ko defee ñu woo seen borom laaj ko lan mooy taxawaayu góor gi Seyni Gueye wala lan mooy taxawaayu Mouhamed Seyni Gueye bu ñu jaralee yàlla dara nag ñoom ci def ci def seet boobu su jaree jaralee yàlla dara yàlla dina ko tontu su la ja soo yàlla dara nag suñu borom du la tontu mu ne bu boobaa di nga xam yow fan nga toll sa diggante ak sa borom kon nag noonu la ko waxe woon e, ba ku ci bëgg a xam dara rek laajal sa borom taxawaayu Mouhamed seen Gueye ci kaw suuf lan la. dégg ngeen ko noonu mbokku téléspectateurs yi mu nekk loo xam ne lu am solo la wax na jaar-jaar ki nga xamante ne moom mooy sang bi nga xamante ne moom lañ fekk si tey si wakaam mu nekk lu am solo lool parce que ñu bëri dinañuy dégg mais bu ñu ko imam taaye leeralee ni au moins ñu bëri dinañ si am ay gindike yoo xamante ne ni moom la ñuy wax ne moom moo demoon moom moo ñëwaat moo demoon moo ñëwaat mooy leer ga la leer gi la leeru insa gi moom la suñu borom yéege woon te leer googu tamit moom la suñu borom wax ne dina ko delloosiwaat ci kañ lay dellusi nag ci mujjug jamono lay dellusi boo déggee yontu bi salaa salaam di wax ne euh, man maa leen gën a yey ci insa ndax su ma digganteeg moom kenn doxu ci si njaalbeen ak si mujj sallallahu alayhi wa insa moo ko jiitu ci jamono ci waxin ndax bi insa dikkee ak ni mu dikkee tax mu teel a feeñ ndax juddu rek wax ne inni abdullahi aataaniyal kitaab wa jaalani nabiyan nga xam ne kon loolu yéeme na liir bu tooy xepp juddu wax alors kon foofu la mbiram feeñee mais jotul dund at yu mu war a takk garaatu rasul ñu yónni ko dégg nga ndax pexe nasaraan yi pexe say say saytaane yi ñu ko doon fexeel pour faat ko ci la ko suñ borom yéegee alors kon nag yéeg booba te bi mu laataa dem wax na ni suma ginnaaw am na ndaw yonent buy dikk su dikkee ahmadu lay tudd kooku ku mu fi fekk loo jàppoon na ko bàyyi nga topp ko da nga xam ne kooku moo yore diine digg dëgg ndax diina jooju lislaam lay tudd kon nag ku mu fi fekk jàppal waa diggante boobu ci la ko suñu borom yéege Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gane si àdduna woo àdduna yëpp dégg nga ba ni muy matalee wuyu ji boromam ñu dem ba jamono sori ñu ne ñu ngi ci mujjug jamono xaar am na ku ñu séenu ne dina wàcc kon kooku kan la te ma yont bi sallallahu waxoon na ne insa lay doon dina dellusi te bu ñëwee mooy nekk suma xalifa ci seen biir Aïcha radiyallahu anha wax na itam ne insa bu dikkee xalifatullaay lay doon waaw kon nag Mouhamed Séni bi mu dikkee la waral baatu xalifatullahi fil ard bi mooy ñëpp xam nañ ne Insa yonent la te it coow li bari na ci li ñu wax ne ginnaaw Mouhamed sallallahu alayhi wa yonent dootul amati waaw kon yonent dootul amati te Insa di yonent ñu ne Insa dina dellu si waaw kon wax bi dina la xaw a doy waar kon nag day firi la Aïcha wax ne bu dikkee xalifatullaay lay doon mm-hmm. moo tax Mouhamed Séni wax ne su ma boroom subhaanahu wa taala def na ma may repré may xalifaam ci kaw suuf di représenter suñu boroom tabaaraka wa taala ci kaw suuf xam nga baatu xalifa dina signifier représentant dina signifier remplaçant waaw mu ne nag bu dee yàlla la yàlla kenn mënu ko remplacer ndax il est omnipotent kon mu ngi fépp xam na lépp gis na lépp wuutewul dara kon kaw ko kenn mënu ko kenn mënu ko remplacer xanaa da koy représenté na mu defoon aadama mu nekk premier homme de la terre di représenté yàlla ci kaw suuf na mu ko defoon daawuda moom itamit mu choisir ko ci biir ay ay ay ay mbokkam def ko mu nekk représentant ci kaw suuf mu ne noonu la ma suñu borom tànnee dégg nga ginnaaw bi ma donalee leeru yoon ci yàlla Insa wàcce ma ci kaw suuf ba noppi xamal ma ne ma yow yaay suma xalifa ci kaw suuf kon nag turu xalifatullaahi fi ardi boobu moom lay wuyoo waaye maqaama mi martaba bi marta martaba rasulullahi la ndax insa rasulullahi la kon nag du wuyoo turu turu Mouhamed seeni xali rasulullahi déedéet ah Mouhamed seeni xalifatullahi fil ardi mu ne baatu xalifatullahi fil ardi boobu boobu lay wuyoo dégg ndax moom moo représenté suñu borom tabaraka taala ci kaw suuf te it kàddug suñu borom mu ne moom la yor yàlla bu diglee jëf lañu ñu war a def représentant su ko joxee kàddoom su ne dig def leen. ñëpp war a def su ne bàyyi leen ñëpp war a bàyyi kon Mouhamed Seyni mi ngi noonu. macha allah mu woote ñaata at moom Mouhamed Seyni balaa mu fi bàyyee ko en 92. bi mu fi laataa jógee dégg nga ci dunduk doomu aadamaam eh, am na 81 ans kon 77 la woote ba 2007 dégg nga mu wàcc liggéey fële ca Maroc ñu indi ko denc ko fii ci ci géej ci géeju Wakaam kon nag. def na 30 ans yoo xamante ne ni wooteel na ko borom bi subhaanahu wa taala yoo xam ne ni zéro faute la ndax woote bi mooy wool ma jamono ñu génn ci caaxaan yi ñu nekk ñu génn ci lëndëm gi ñu nekk te ñu taxaw ci njubu seen borom subhaanahu wa ndax yàlla ku mu mës a yónni ngay ndaw baatu njub la la jox te jub googu si ngay jubbantee ñi nga bokkan ñi nga bokkandool jamono alors nee na baatu njub googu ba mu nekkee Touba nee na ca Touba la ko suñu borom bindal ci kaw asamaaw ne ko alhuda soo génnee ci biti tax dinga gis ci ci mur bi fële ñu bind fa alhuda dégg nga mbind mu ñuul dégg nga mu ne ci suufu deel gi mu am tomb bu xonq coy kon loolu mooy wane ne kiikat kat borom sañ-sañ la borom ndigal la ku ko topp di nga jub kon njub googu la ko suñu borom jox. ak ragal yàlla ak sellal ne ko woowal jamono ci ñetti baat yooyu su fekkente ne bëgg nañ seen jamono defaru su fekkente ne bëgg nañoo mucc nañu tënku si ñetti baat yooyu muy njub ragal yàlla ak sellal. macha mu jóge fi depuis 92 nag bi mu jëmee doomam ju tedd jooju moom moo toog si xilaafa gi fi mu toll nii xanaa ñu tëjee foofu rek ndax waxtu yi ñu ngi may signalé ne jeex na. waaw eh, bi mu fi jógee 2007 alhamdulilah eh, doomam ju tedd ji di taawam di Mawlana Mouhamed Nabi Eh, ibnu xalifatullahi fil ardi Mohamed Seni moo toog ci palaasam dégg nga ngir yeggali mission bi te gis nga mbir la moo xamante ni mu yéeme la ndax moom ba muy tuut tànk eh, suñu borom xamal na sang bi ne ko sa doom ji di Mamadou Nabi moo lay jàppale ci sa mission bi te it woy juróom wu tedd maam daaw dog wax na ko ne gis naa sa doom ji di Mamadou Nabi mu lay bayle sa ñaareelu tool kon nag ñaareelu tool boobu mooy mission bi nga xamante ne moom la suñu borom tabaaraka la jox Mouhamed Seyni xalifatullaahi fil ardi léegi mu nekk ak waajuram ànd ci ak moom ci liggéey bi waajur wa làqu na moom war a toog continuer liggéey bi nga xamante ne moom la ko waajur bi bàyyeel kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dolli wér ak kantan yàlla na ko yàlla defal ndimbal zahir ak batin ba fii mission bi war a yegg mu mëne ko à bon port ñu ànd ak moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen lu baax a baax ñoom itam si disponibilité parce que biñ leen woowee démb rek dañ ñoo accordé pour ñu ñëw jàkkaarloog ñoom ak ñoom si ëttu diine yi ndax weeru koor la ñu nekk te 7 si bëgg a ànd ak ñoom ne ñoo yëggu si diine bi fépp foo xamante ne këru diine mu ngi fa rek incha allah nañ fay dem ñu jaajëful baax a baax alaaji Papa Ndéné Dieng moom itam si kër gi di jaajëfal imam taay moom itam imam ratib bi waaye di jaajëfal tam kam euh, euh, kebe bi nga xam ne moom moom laa àndal tey si caméra bi leen jaajëfal baax a baax rendez-vous yàggul dara lay doonaat biir beneen këru diine ndax émission bi koor gi noonu lañ ko fas yéenee ànd ak yom ak 7TV yi nga am xamante ne lépp loo xamante ne ni këru diine rek incha allah dinañ fa dem waaye dañ koy doore woon fii comme ni ñuy faral di wax bay si say oom moo tax ñu njëkke ko suñuy oom jaajëfal naa leen bu baax a baax rendez-vous à très bientôt si biir 7TV seen émission ëttu diine yi